waaye ziar bu baax a baax mboolem taalibe yëpp nga xam ne ñu ngi ñuy topp saa su nekk di gën a dolliku euh, seen pas-pas ci maam Cheikh Ibrahima Fall rawatina liggéey bu tedd bi nga xam ni mi ngi koy liggéeyal ku tedd ki di Serigne Touba Cheikhul Khadim euh, tey nag xam ngeen ne ñu ñëwoon fii nag euh, fii nga xamante ne mooy héliport lañ ko gën a xamee fi nga xamante ne bii mooy kër Cheikh Mahamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor kaddu yoonu murit yor kaddu Serigne Touba Cheikhul Khadim Eh, xam ngeen ne liggéey bu tedd bu rëy bii ngeen di gis ci sunu gannaaw muy jumaa ji nga xam ne eh, fii la ko naal ci péncam mi waaye sunu borom dogal nag eh, xam ngeen ne digganteem ak jàmbaar jii di Serigne Cheikh Bintou Fall moom Cheikh Modou Ablaye Fall Ndar tey di fi jëmmi Serigne Modou Ablaye ci kaw suuf jiite njaboot gi jiite liggéey bu tedd bi nga xam ni Cheikh Modou Ablaye moo ko teg ci loxoom tey yàlla dogal xam ngeen ne pas-pasu Serigne Cheikh Bintou ak pëseefam waaye tamit ak kóllëreem ak li ko ñor ma xam ne maam Cheikh ba Fall rek la loolu am nañ ci seede noonu te yàgg na booba mu Modou Ablaye mi ngi fi waaye xam ngeen ne loola da wéel di ko continuer di ko dox mboolem digganteem ak njabootu sëñ Touba gépp nag eh, ci loolu itam xam ngeen ne Serigne Bassirou moom Serigne Abdou Khadir eh, jox ko liggéey bu tedd bi nga xamante ne bii dégg ngeen ci annonce bi ni mu ko waxee ne dafa ñëw ci sëriñ bi ba génn gis jàkka ji gis jumaa ji yaramam daw parce xam na ne maam li ko fi bàyyi woon mooy liggéeyal ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Ibra waxoon ne sëñ ma dem ko wax daf ko ne gémmuñ gu yàlla xar bëgg muy wax laa a tax sëñ Bamba lu ma lay liggéeyal ak liggéey baa ngi nii loola la sëriñ Cheikh Bintu euh, royee ci maamam ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina moo tax nag euh, sëriñ Cheikh Basirou moom sëriñ Abdou Khadir jël liggéey bu tedd bi teg ko ci loxoom sëñ Cheikh Bintu nag. woo ci mboolem njabootuk sëriñ tubaa gi ak mboolem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi ak mboolem wëllër yëpp ak mboolem ñi bokkal mu Mourad Ablaye Fall Ndar ngir rek ñu ànd liggéey liggéey bu tedd bi ndax euh, gis-gisam dafa yaatu xam na ne kuy képp koo xam ne dañoo yaa xëy ci sëñ bi xoolal sëñ Abdoulaye dafa waxoon ne ku xëyal sëñ Touba ku ne murit yee la war a fay xam na ne Cheikh Mouhamadul Bachir yitteem yëpp Serigne Touba Cheikhul Khadim la Cheikh Mouhamadul Bachir jéegoom yëpp Serigne Touba la ndax ku Serigne Touba dem ba ne yaay samay bët yaay samay tànk yaay samay loxo kon kooku amatoo jënn yitte ju may jëmmi Serigne Touba ji xam na ne Cheikh Mouhamadul Bachir ci Serigne Touba lay xëy mu xam na ne kuy xëy ci Serigne Touba ku ne murid yi war a xëy ci yow loolu rek la Cheikh moo sëñ ba sëñ Cheikh xam moo waral nag mu ne comme Cheikh Mouhamadou Bachir mii yitteem jëpp mooy sëñ Touba talut dara lu may liggéeyam sëñ Touba Cheikhul Khadim bii kon nag moom nga xam ne mooy ay naalam noonu it ko ca wuutu ngir la muy jëfal sëñ Touba ñu nit ñu mën koo jëfal ngir rek xam ne fa mu ne ñun ñoo fa war a nekk kon ñun ñoo ko war a nekkal ci barabam loolu mooy man de boobu yëg-yëg laa yëg te wallaay lancim xam naa ne maag sëñ Cheikh Bintou ñoo bokk benn yëg-yëg xam na ne jëmm ji muy liggéeyal sëñ Touba képp a ko ñor sëñ Touba rek la joxoñ sëñ Touba rek lay topp kon nag lépp loo xam ne mooy ay naalam lépp loo xam ne mooy programme am kooku moom yëpp war nañ cee xëy di ci gont suba ak ngoon guddeeg bëccëg suba ak ngoon ndax lu ko waay defal sëñ tubaa nga ko defal ndax ci sëñ tubaa lay xëy te ku xëy sëñ tubaa ñu war a xëy ci yow loolu moo waral nag mu ne nag mi ni mel ak jumaa ji moom dana jaayante ngir jëmmi Cheikh Ibra Fall maamam dana jaayante ngir jëmmi sëñ Ablaye Fall Ndar dana jaayante ngir jëmmi ngi fi wuutu ngir rek taaral ko melal ko na mu war a mel na la ca sëñ sëñ Basiru moom sëñ Abdou Khadir yéene woon mu yéene nag ngir jëfal ko loolu ci fii ci penc mi te yegg la jumaa ji ànd ko nag mboolem njaboot yi xoor architecte yaa ngi ni taxaw euh, ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey ji jëwrin yaa ngi ni taxaw mboolem ñi nga xamante ni bii tam ñoo àndoon ak Cheikh Modou Abdoulaye liggéey bu tedd bi tey ñëpp wuy su ko ànd ak moom liggéey bi kenn ku nekk yaa ngi fiy xëy di ci ziar mboolem jëwriñ yëpp nag fàttewuñu leen eh, buñ ci jiitalee sunu baytaala ñang rek di jàmbaar lool nag di ko xam ni te sëñ Moussa Ñankool ak Cheikh Ibra la woon ba tey waaye ba tey teggiwu tànkam ci kër buntu kër sëñ Abdoulaye Fall waaye teggiwu tànkam ci kër ëttub Cheikh Modou Abdoulaye Fall tey muy taxaw liggéey bu tedd bi noo ngi ñaan sunu borom mu dolli leen kattan bu baax a baax sañ fallu eh, si la muy àndal liggéey bi xam na ne daal li ñu indi fii mooy taataan liggéeyub Cheikh bi nga xam ne moom lañ fekk njabootu Cheikh Modou Abdoulaye Fall Ndar di ko liggéeyal Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor kaddu yoonu murit yor kaddu Serigne Touba Cheikhul Khadim jéego boo gis ci Cheikh Mouhamadou Bachir ak foo ko dégg ak foo ko séen xamal na Serigne Touba ko fa yabal loo dégg moo wax kaddu Serigne Touba la ndax loolu rek moo fi moo ko fi ba ci kaw suuf loole nag la Serigne Cheikh Bintou xam ne ku xëy ci Serigne Touba ñu wa a xëy ci yow loolu moo waral mu daal di nag na nag dafa yéene li Cheikh Mouhamadou Bachir naal fii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 Euh, gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla cheikh Mouhamadul Muntaxa alxalifatul ham hmm. li taifatil muridiya ay dawla wa nasara xaafisawula wara yàlla na fi yàgg lool te mu ànd ak wér waaye di ñaan bu baax hmm. rakam ju tedd ji sëriñ Mbàkke Siidi Mbàkke moom cheikh Abdoul Ahad hmm. waaye di ñaan bu baax at euh, sëriñ Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ni moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima ci kaw suuf ak mboolem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem njabootuk sëriñ Touba gi Euh, ñu ngi nuy bu baax sëriñ Bassirou Mbacke ibnu sëriñ Abdoul Khadir mi nga xam ni moom la sëriñ Cheikh Bintou Fall ibnu sëriñ Modou Abdoulaye di liggéey liggéey bii tey nga wax kàddu yi nga ubbee muy kàddu yu am solo di kàddu yoo xam ne mu bu ne war na cee bàyyi xel te lii dafa am loo xam ne day cislaay li ndax alxuraan moo wax ne wa anal masajidallaahi falaa tad'u laay ahadaa sëñ tubaa mi ñu yaakaar àdduna ak alaxira waxal boppam ci nuuru daare ne wa jal buyuti kullaha masajida yaa naa fi an man laa yakunu sajida yàlla nanga nga def sama néeg yi ak sama kër yi lépp nekk jàkk ak juma ni nga ko waxee rek ci njëlbeen gi sëriñ Cheikh Bintu moom benn yitte rek la am benn bëgg rek la am mooy fi waajuram wa sëriñ Modou laay Fall Ndar nekkoon te maamam ja sëriñ Abdoulaye Fall Ndar nekkoon ca te maamam ja maam Cheikh Ibra Fall Babul Mouridine nekkoon ca mooy sax ci ndigeelal sëriñ ak fonk yoonu murit njabatuk sëriñ Touba gépp moo waral mu laaj liggéey bi sëriñ Bassirou Mbacké sëriñ Abdou Khadre ndax moo ko laaj te sëriñ Bassirou mën naa liggéey lii am na ay taalib yu ko mën a liggéey am na mbooloo mu ko mën a liggéey te comme ko santoon nga liggéeyal ko ko waaye dafa ni sëriñ Cheikh Bintou damaa def li si xaar sama diggante ak sama di xaar jumaa ji ndax fii mu nekk sëñ Saliou Mbacké yàlla na yàlla yokk leeram taas ci barkeem moo ko fi dëhaloon teg ko fi jox ko barab bii ni ko boo demee nga def fa jumaa bi mu ko liggéey ba noppi woon ko plan jumaa ji ñaanal ko ginnaaw ci bi fi sëriñ El Hadj Baara Mbacké nekkee 2010 lañ ko tàmbale daanaka ci jamono yi Cheikh Seydil Moukhtar daanaka ginnaaw sëriñ El Hadj Baara ñu tàmbale ko yàlla dogal boobu ba léegi liggéey bi nekk fi ba 2020 sëriñ Cheikh bi muy siyaar fii sëriñ Bassirou Mbacké mu sëriñ Abdou Khadir ku a xam diggam ak moom sëriñ Cheikh Bass di sëriñam di yaakaaram di léppam moom it mu nekk taalibeem nekk nekk kenn ci moom comme diggante Serigne Touba ak maam Cheikh Ibra Fall Babu Mouridine yàlla dogal mu laaj ko liggéey bi ni ko man day som damaa bëggoon nga jox ma liggéey bi ma àggale la ko loolu la mooy la sa sa maam Cheikh Ibra Fall waxoon rek njabootu Serigne Touba gi fuñ nekk njabootu maam Cheikh Ibra Fall ñoo war a wagar ndax Serigne Cheikh Bass ku ne amul benn yitte bu dul sax ci liggéeyal Serigne Touba ak ak ak ak magam yu yii ak waajuram yu yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon yàlla dogal talul kenn talul dara da ngay dem ba sax da ngay ñeewante jëmam ji ngir du tal dara ci àdduna ndax yéeg wàcc dem nekk ci ndigalu Cheikh Modou Mountakha ak ñi ko jiitu loolu nag Serigne seex loolu la xool xam ne kii lii xelam sax daj dana ci génn mu laaj ko ni ko dama bëgg nga jox ma ko ma liggéeyal ci Serigne Touba booba léegi nag ñu ànd ko murid i nga xam ni ñoom ñoo ànd ak Serigne Cheikh comme ni mu ko waxee sasu ci kenn dara laaj ci ken dara moo fi njëkkit te moo fi mujj te wax nañ lu ma ci waaye jox ma defal ko ko ci te loolu mooy lii mooy jëfal yàlla ndax nag suñ borom nee na jën naa bakkanu jullit yi ci seen alal jën naa àjjana yi jullit jën nañ seen ajana ci seen bakkan ak seen alal yàlla jën na al jullit yi jën nañ seen ajana ci seen bakkan ak seen alal ngir ñu mën ci am aljana maam Cheikh Rafal nag doxin woowu moom rek la mos a doxee waaye bi ko sëriñ bi laajee nag bañ jox ko ko da teg ci ay loxo yoo xam ne loxo yu wóor la ndax ingénieur baa ngi nii architecte baa ngi nii technicien baa ngi nii euh, entrepreneur yaa ngi nii maçon yaa ngi nii ak mboolem ñi nga xam ni ñooy liggéey ñi nga xam ne ñooy liggéey liggéey ayu murit di ko teg ci xam-xam bu leer nga xam bala ñoo def dara dañuy tracer xool ba mu méngoog jamono borom xam-xam yi ñëw xool ñu ànd ak ñoom fekk ci leen loolu loolu moo tax keroog bi ñuy pose première pierre bi fii Serigne Cheikh Bassirou Mbacké Serigne Abdou Khadir jiite ko ak mboolem kilifa yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon taxaw ci taxawaay bu rafet ñu ñaan yàlla liggéey bi yàlla nañ ko liggéey ba mu ne coleet loolu nag day lu ndax cëslaay la ndax sëñ Ablaye Fall Ndar mi meññ sëñ Modou Abdoulaye mi meññ sëñ Cheikh Bintou moo ànd ak sëriñ Fallou Mbacké ba le 7 juin 1963 ñu liggéey jumaay Touba ubbi ko sëñ Ablaye def juróom-ñaari carrière liggéeyal waajuram wa maam Cheikh Ibra Fall Babou Mouridine te bañ koy tàmbali ci kasum raay ba sëñ Ablaye karne la yoroon Cheikh Modou Moustapha Fall teg ko fa ci ndigalu waajuram wa tedd wa maam Cheikh Ibra Fall Babou Mouridine kon loolu day lu am solo kon lii bu ko defaatee sëñ Modou Abdoulaye Fall Ndar liggéeyal sëñ Abdou Khadir keesam gi nga xamante ni moom la ko sëñ Abdou Lahat santoon ba def fa jàkk ci biir sëñ Abdoulaye Fall Ndar liggéeyal sëñ Abdou Khadir fii ci Mbàkke Xewar këram ba defal ko fa jàkka kon sëriñ Cheikh bu ñëwee fekk sëriñ Bassirou sëñ Abdou Khadir laaj ko jumaa ji jàkka ji ngir bëgg ko ko liggéeyal day lu yell ñu ngi ñaan yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye di la remercier yaag Seydina Alioune Badara Ndim ak mboolem ñi nekk ci télévision bi ak organe de presse yi ngeen yor yëpp muy li ko tàmbale ci sëriñ Alioune ki nga xamante ni mooy sëñ Ibrahima Gueye ak ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn ñoom ñëpp suñ sëñ Aline Thioune ñoom ñëpp suñ borom dafa leen tawféex ba télévision bii nga xam ni mooy télé murid yi muy Lamp Fall TV suñ borom yóbbu ko fu kawee njor ci daraja sëñ Touba. Euh, asalaamaaleykum donc euh, liggéey bi comme ni ñu ko gisee euh, dafa di liggéey bi nga xamante ni dafa bëri ay erreurs yi nga xamante ni dañ ko fa fekkoon te mun mënuñu tëb tëb rek commencé liggéey bi te sant pour autant defar erreur yooyu. par exemple boo xoolee fenêtre yi euh, dafa am ay appui fenêtre euh, yi nga xam te ne vraiment dafa bëri woon ay fissures dan dan leen doon euh, defaraat defaraat nañu lépp vraiment macha allah soroor yi nekk si kanam boo xoolee ni ñu ko liggéeye dafa tuuti woon par rapport ak soroor yi mu war a nekk carrément parce que boo demee buñ ko wàccoon noonu mu nekkee woon buñ demee ba sa ba kaw bu wàccee bu wàññee ko donc soroor yi dootoo mën a am euh, dootul dootul nekk dans les normes moo tax boo xoolee soroor yi si kanam boo xoolee yëpp dañ leen toj reprendre leen bon euh, soroor yi si ginnaaw aussi euh, dañu am dañ koy yaatalaat defal ko ay couloir boo xoolee boo boo leen génnee léegi nii di ngeen gis ay couloir yooyu ñuy defar noonu pour soroor yi gën a kii donc vraiment liggéey bi mi ngi sore bu baax a baax lépp euh, li si war ñoo ngi koy def boo xoolee euh, euh, si kanam poteau yi ñu commencé woon defar lépp dañ leen dindi parce que dafa nekkoon si dosage bi nga xam te ne dafa woyofoon ba pare mu nekk liggéey bu xaw a yàgg donc liggéey dafa bëri woon trop trop ay ay ay modification donc sant nañu suñu borom ba nga xamante ni modification yi fi nekkoon yëpp quasiment ñoo ngi jeex xëy léegi ñoo ngi attaqué deuxième phase bi deuxième phase bi mooy eggale jumaa yi ni mu waree. bisimilah barke Cheikhul Khadim jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lam Fall Babul Mouridine ah ñu fas yéene ci yëkkati tuuti kàddu rek ah, waaw daal di ci daal di ci barkeelu rek waaw ci ci ci ci ci ci ndigal lu ñu may rek waaw ñu mën cee barkeelu tuuti. ah liggéey bi nag ah, ñun niñ ko mën a waxee rek keroog ba may bañ may woo sax ci liggéey bi. daanaka dañoo dañoo foogoon ne waxu ku daanu la wala wala leneen déedéet euh, dama daan bu ma yeewu euh, dama euh, baaxoo di jóg 4 heures 5 heures du yu ma daan jóg itam dama daan dama ko doon fasaale di ñaan sunu borom subhanahu wa mu dimbali ma bama boole ma si liggéeyu Cheikhul Khadim a ah, loolu nag loolu xanaa de ku tedd ki rek moo ma ci dimbali. du sama juddu du lu ma am wala du du dama gën samay morom ay techniciens ñu ngi fi ay ingénieurs ñu ngi fi ay milliardaires ñu ngi fi te jotuñu ci am na ñu ko doon yootu itam ci sama ci sama li ma ci fort astuut te jotuñu ca kon nag jërëjëfati Cheikhul Khadim laay jëkk a wax bala may bala may dugg ci mbiru liggéey bi di di sant itam maam Cheikh Ibrahima Fall Ibrahima Fall mi nga xamee ne Lamp ba Lamp Fall Baabul Mouridine mi nga xamee ne mooy sunu bunt ci Cheikhul Khadim bu dul woon moom jëmmam ju tedd jooju itam kenn du jëriñu ca moom waaw ñu di ko sant bu baax a baax a baax a baax liggéey bi nag euh, keroog dama am kàddu yu ma yëkkati ñu da keroog itam dama am kàddu yu ma yëkkati ñu yaakaar ne waxu ko daanu la déedéet keroog bañ ma woowee ñu toog euh, ci benn entrevue bu ndaw ne ma yow day dañ boole ci liggéey bi euh, ci nga bokk ma ne ah ginnaaw nii la demee day sama lépp jox naa ko Cheikhul Khadim kon nag bu soxlaa keneen ko soxla ñàkk ngay def ñaareel ba mooy itam ba ñu taxawee ci biir bâtiment bi mu di jumaa ji ñuy tabax yal na ko yàlla àggali ci jàmm ak salaam ba ñu joxe caabi yi ci jàmm ak salaam te mu ànd ak dëppoo itam ak anam yi yi ko yiñ ko soxlaa keroog dama ni euh, bu doon bakkan bi dañ ko ci bàyyi sax nan ko fi bàyyi dem waaw mu jar ko ndax kiñ koy liggéey jar na ko. sëñ Cheikh bintu Fall moom rek lan ameel tey njukkal loo xam ne ñun dongo yi ñun njabootam mën nañ koo wax ci fànn anam yu yu yu leer yoo xam ne dañ koy wax waxin wu wér woo xam ne wu dal lay doon ndax ànd ànd gi ci dàq mooy ànd ak koo xam ne nii jëlee na la fi barab di la yóbbu fi barab te sëñ Cheikh Bintou noonu la def ak ñun. daf noo jëlee ci ba ci daf ñoo jël dafa am fu mu ñu jëlee am fu mu ñu jëmee te fa mu ñu jëlee gën fa euh, euh, euh, fi mu ñu fi mu ñu fi mu yóbbu gën fa mu ñu jëlee ndax jullit day kaay santle ma yàlla kaay ñu ànd liggéey néegu yàlla ñaari woote yi benn woote gënu ko ci lislaam te ànd ak sëb sëriñ ñaari baat yooyu dong mooy baat yi mu lay yi mu lay mus a mus di yëkkatee du la mus a yëkkatee leneen saa bu ne jóg leen yàlla yàllaa tax saa bu nee jóg leen rek liggéeyal yàlla tax lu dul liggéeyal yàlla du ci yëkkati njabootam kooku moo mat di sant di mat di gërëm tey ñaanal suñu borom guddalu fanam te yokk tawféexam mook rakkam yi ak njabooti boppam yi ak soxnaam yeeg njaboot gi mu jural boppam ñëpp suñu borom teel leen boppam ñun ñi nga xam ne nii daf ñoo tànn ñu doon ay jëwrin féetee ci wàllu liggéey beeg feneen ak feneen li ñu yëg ci moom di ko gis ci waxtu wu ne ak jamono jooju te koo seere mooy ku am ku am ku am ku amuk bëgg la ku am gis-gis la te ku bëgg lis ku bëgg am fu mu yóbbu lislaam ci barkeb maamam ja nga xam ne lislaam ñor na ko ñorin goo xam ne nii boo xoolee doxinam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu nelee kii Baay Faal la da nga naan déedéet dégg nga su loolu muy ay mbir yoo xam ne ay ay ay installation la yoo xam ne nii installé na ko ci jëmmam installé ko ci njabootam muy doxin woo xam ne nii doxin wu leer a leer la wu nit mat wuñ mat di wax waxtu ne mu jëf kook ñun ba pare noonu lay distribuer xelam maanaam xelam da koo jël di ko tasaare ci ci ci ci point yëpp du lii rek de sëñ bi du lii rek de maanaam lii daa bokk ci li tax tey ñu taxaw fii leen di ñaanal yéen ñi nga xam ne ni yéenay télévision beeg rajo bi sun borom dolli seen tawféex te dëgëral leen te dool seen jàppandi ci mboolem fànn yi ngeen bëgg a liggéey lislaam ci kaw wax ji ñuy wax muy dem ci biir lislaam di dugg ci xolu jullit yi ak taalibe yi. Eh, jërëjëf eh, jëwriñ yow yaay ki bi. waaw waa kay fan la installation bi toll. wala yaa ngi waajal. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di siyaare sunu sang yu tedd yi nga xam ne ñoom lañ fi nekkal ñoo fas yéene engagé liggéey bi bëgg koo defee ni ko borom liggéey bi bëggee ah di ci ànd ak sama jëwriñ yi nga xam ne ñoom laa ko séqal liggéey bi nag comme ni ko sëñ bi bëggee. mooy lépp loo xam ne dafa méngoog jamono rek na ci am euh, biir installation bi euh, ñu ngi ciy prévoir ay climatiseurs ci biir dinañ ci prévoir ay fontaine maanaam daal lépp loo xam ne méngoo naag jamono fas yéene nañ ko cee def ndax noonu la ko sëñ bi bëggee tey noonu la ko borom liggéey bi bëggee euh, ñu ngi ci daal di góor góorlu di def lu ñu man ñii nag ñoom ñoo yor wàllu chantier bi ñoom laa ci àndal lépp loo xam ne lu ciy defalo ci ñoom ñoo ma koy wax lépp loo xam ne lu ñuy defar la ñoom ñoo ma koy wax man daal ñii ñoo ciy sama njaatige ñoom laa ci àndal. ñu wax bisimilah rahmaani rahiim di sant sëñ Tuubaa Seera Faal di sant Cheikh Modou Ablaye Fall borom Ndar Fall nag di ñaan saa borom yokk ay leeram taam ñu si barkeem di ñaanal li si Cheikh Bintou Fall mu yàgg fi loolu te wér ak njaboot gi yëpp ak taalibe yi waaw waañu de moom nii rek la moom heure bu ñu xëyee ñun ñoo xëy si si waañu eh, wax dëgg bu ñu fi dalee xëy si ba tey muy jëf nam yi ñu jëfandikoo ak café gi yëpp daal dara manqué wut ñu woote nag ñëpp nag taalibe yi ndaxte waañu moom nii la rek dañuy liggéeyal sëñ Tuubaa Seex Ibra Faal tey nag ñu ngi si woo ñëpp ndaxte lii liggéey yàlla la liggéey Seex Ibra Faal la képp koo xam ne bëgg nga lu baax daal ñu ngi la si woo di si woo nag taalibe yi ñëpp di si wo waa kër sëñ Tuubaa Seex Ibra Faal waa kër sëñ Morom Laay ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen di woo ndaxte waañu moom nii rek la tëdde biñ commencé ñun ñii bés bu ne dañuy xëy si si waañ wi buñ toggul mbana la ñuy taal heure boo xam ne nit ñi dem nañ ba pare itam dañuy togg ay ñaari mbana dañ koy togg dara manqué fi nag wax dëgg yàlla dara manqué fi dañuy ñaan daal sëñ Cheikh Bintou Fall yàgg fi lool te wér daal dañ koy ñaanal. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi nii toog ak euh, sëriñ Cheikh Bintou Fall moom Cheikh Modou Abdoulaye Fall Ndar euh, tey euh, yore liggéey bu tedd bi nga xam ne moom la fi Cheikh Modou Abdoulaye Fall Ndar bàyyi ñu fekk ko fii nag ci héliport eh, ci kër Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëñ Abdou xaadir xam nga ne liggéey bu tedd bii nga xamante ne bii moom lañ liggéeyal sëriñ Bachiru Mbacke moom sëriñ Abdou Khadir muy jumaa ji nga xam ne mooy ne ci penc mi te jamono yëpp mu nekk ci te ñëpp gis nañ tegu xeer wi nga xamante ne bii moom la Cheikh Mouhamadul Bachir tegoon xeer wi ak kaddu yi fi jib yëpp nag te mooy li mu wax saa su nekk rek ne moom eh, yéenam jëpp mooy liggéeyal sëriñ Touba Cheikhul Khadim liggéeyal maam maam Cheikh Ibrahima Fall ndax loolu la ñu Cheikh Ibrahima jàngal te itam Cheikh Ibra it la waxoon na ne sëñ Mat Dem na ko gémmiñ gu yàlla xar bëgg muy wax laa ilaha illa rek rek taxoon yàlla xar ko waaye Mat Dem ba mu def sans bos man de sans bos ñaar rek a tax yàlla xar ko mooy sëñ Bamba lu ma lay liggéeyal ak liggéey baa ngi nii loolee ci la sëñ Cheikh Bintu nekk te loolu la ma a xam nag nag ndax boo fi waajuram di nekk ba tey yàlla dogal mu jiite liggéey bi tey xam naa kàddu yi ci moom la ñuy taataan rek su ko defee mu leeralal ñu liggéey bi naka la demee ndax jëwriñ yu bëri yëkkati nañ fi kàddu nag leeral sànc bi ni mu demee yi ñu fi fekkoon ak li ñu fi naalaat li ñu fas yéene dolli ko ci lu bëri mu mel ne daal dañoo yëg ne la Cheikh nekkoon mooy lu mu gis ci lu jëm sëñ mu yokk ko même lu ko sëñ bi sant rek mu defa cee noo xamante ne bi da ngay gis ne kii pësteef ak pas-pas waaye liggéey bi loolu lañ gisee ndax gis nañ ni mboolem li ñu fi fekkoon euh, ci bët ci bu xoolee sëñ bi ci bëtam dafa gis ne dañoo war a dañ ko war a wër mu gën a yaatu ba ci bi ñu jàkkaarloo ci sorol bi ci la bokk ahousu billahi min sitan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin suma salaatu wasalaam ala rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu mbokki julli tedd yi waaye mën a nekk ñu lay siyaare ci bis bu bi muy yowmal jumaa ñi siyaare si gisal nag suñu kilifa yi tedd yi Cheikh Amadou Mountakha al Bachir Khadim Rasoul ñaan yàlla yàggal ko fi loolu te wéral ko mboolem njabootu Serigne Touba gépp yi tege Serigne Cheikh Jëm Fall xalifatu maam Serigne Fall suñu borom yàggal ko fi te wéral ko te dëral ko te kàttanal ko di siyaare Cheikh Mor Tall Fall moom Cheikh Abdoulaye Fall Ndar di siyaare nuyu njabootu Cheikh Modou Abdoulaye Fall gépp muy góor di jigéen bu fay mën a nekk di nuyu nuyu mboolem buntu kër maam Serigne Fall yi uh, jigéen uh, sëñ Mamour di siyaare bu baax it uh, sëriñ Cheikh Bass sëriñ Cheikh Bassirou Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Khader ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko. Euh, liggéey bi euh, noonu nga ko waxee rek man sama wàllu bopp maa maa ko sàkku ngir sëriñ Basiru jox ma ko ma ànd ko ak jullit ñi ak taalibe yi ak njabootu sëriñ Tuubaa ak njabootu Maam Seere Faal gi ak njabootu Cheikh Modou Abdoulaye Fall gi eggaleel ko sëriñ Tuubaa liggéeyal ko sëriñ Tuubaa loolu rek euh, tax ma sàkku ak it nag jublu ci lenn lu sàkku tiyaaba ak ak yiw te xam ne fan jëm dara dara lu baax dafa doy waaw te it al ala kulli foofu lañ jëm boo fa defoon faaw rek wala junni asit yàgg yàgg rek eh, foofu lañ jëm kon ñu xam ne foofu barab la boo xam dëkk la boo xam ne eh, eh, fii lañ koy duggale fii lañ koy waajale te lañ koy waajale fii loo ci am rek du doy. waaw moo tax nag ma xam ne lii aw yiw la tiyaaba la tawféex la mais naa nañ ci sàkku ngir liggéeyal ci sunu borom liggéeyal sëriñ Touba yéene ci it waajur wi Cheikh Modou Abdoulaye Fall mu mel ni sax moom lañ koy mu mel ni sax moom moo koy def ci loxoom ak jëfam waaw te loolu loolu kero bi sëriñ bi te xeer wi bi ma joxee tureel bi ba tureel bi ak ci man loolu laa ci fas ma ne Cheikh Modou ñu ne fas yéene euh, jëfal lii tiyaaba ji ak yiw ji di dugg di la fekk si foofu nga nekk ak mboolem sa njaboot waaw loolu daal moom mooy euh, mooy sabab bi euh, li si ko nag ni euh, nga gisee jàkka ji noonu la demee sëriñ ba Basiiru ci boppam moom Seex Abdul Xaadar keroog bi ñu jógee ci kiiw daaru manaan bi Euh, ci ci biir màggal gi programme màggal gi ma gunge ko ba mu agsi fi ci këram gi waxtu timis mu ñaanal ma ba ma génnaat ba ma jógee ci kër gi baax wut sama oto jëm si jàkk mel ni ma jàkkaarlu jàkk ji mu am lu ma yëg ma yëg ne jàkk ji daal war naa ci jaayante Sëñ Tuubaa ci laa wàññi ko waat ne dafa xaam dugal ci biir man dafa ñaari jéego ma taxaw ah sëñ sëñ bi ñaanaloon na ma kat du teggin may duggaat ci biir ma yónni ki ma àndaloon ne ko demal ma ci sëriñ bi ne bu ma joxee ndigal ma e-, jàkk ji ma eggaleel ko sëñ Tuubaa bi ndaw li ñëwee fekk sëriñ bi taxawal julli timis mu wax ko ki mu nekkal ki sëriñ bi nekkal sëñ Aboo Gay mu ne ko bu sëriñ bi sëlmalee naa ko wax bi ma jógee fii jëm kër ga jannatu ma xawaa kër bi ma tolloog palen jógoo kebe ci bunt bi ci la ma sëñ Aboo Gay la sëriñ bi dama dama sëriñ bi kat nee na kat dañ léegi daje nga jeg tawfeex tawfeex sëriñ Touba dama kat damaa damaa tontu li si xaaram ci sëriñ Touba moom sëriñ Basiru mais dafa wax ne dafa ñaanam boromam ne lépp lu mu defal sëriñ Touba na ci maam Seere Faal ak njabootam doon ca dara mu ne jumaa ji nag jàkk ji dafa waxoon ne sëriñ Touba la ciy nekk nee na am na ñaañu ko laaj ci waa këram mooy leen sëriñ Touba laa ciy déglu am na nee na am na waa daayira bi ne fii di daayiram laaj nañ ko ko mu ne leen mu ne leen sëñ Tuubaa laa ciy déglu nee na bi ma ko laajee nag nee na loolu mooy loolu moo tontu li si xaaram ndax dafa waxoon ne lépp lu mu defal sëñ Tuubaa day ñaan maam Seere Faal du doon ci dara loolu nag ma sant ci yàlla lool xam ne du suñ ngóora du suñ man-man waaye lu ñu fàggul la lu ñu dencal la xaas la ndax liggéey bu mel nii muy liggéey bu néegub yàlla nga xam ne boo dem ba àllub kaañ nga def ko fa wala nga dem ba Matam wala padaro wala foo ko ma def ci biir ci àdduna bi eh, ku say julli rek foo mën a nekk di ci am tiyaaba ak foo mën a nekk yow liggéey boobu sëriñ Sëriñ Tuubaa wax ne moom Sëriñ Tuubaa la ciy déglu ñu ñëw laaj ko mu ne mu ne nañ la si xaaram kon loolu sant yàlla mu ne ma nag danga may may ma wax ko Seex Muntaxa ndax mooy sama kilifa. bi mu ko waxee sëriñ bi sëñ moo xam ne ma Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na ànd na ci sedd na xolam nee na suñ mën naa yéwé na suñ mbir àdduna ak àllaaxira ma ne ko na nga ko fi indi ma ñaanal ko bala ko tàmbali àllarba yi mujj ci diggu diggu màggal mooy diggu eh, mooy weeru safar àllarba ji ci mujj ca timis sëriñ bi woo woolu ma ma ànd ak sëriñ Basiiru ñu fekk fii ci Daaru Minam mu ne ma sëriñ Basiiru wax na ma lépp waaye sama ko sedd na bu baax na nga xam ne sëñ tubaa ngay liggéey liggéey bi sëñ tubaa la ko jox daa téye sama loxo ñaanal ma waaw ñu ñaanale weggal ba nodd gi daanu ñu ngi liqaam mu ñaanal mu ne sëñ Basiiru na jiite timis si jàkka ji jàkk ci biir këram moom mu duggaat ci biir néegam foofu la julee timis waaw lii loolu la doon loo xam ne sëñ tubaa bàyyi koo bi loolu amee ma dem sëñ Cheikh Jëmb ma yónnee fa ndaw euh, sëñ Bada Diop laa fa njëkk yebal ak sëñ ak sëñ euh, sëñ Amdi Fall euh, ba mu demee ñu fekk sëñ bi fatu waaye sëñ magee ne leen ba sëñ bi ubbee naa ko leeral ma jokk ko sëñ magee téléphone leeral ko mu ne ba sëñ bi ubbi sëñ bi ubbee ba ca ginnaaw suba sama woo ma sëñ bi nee na loolu nga ko waroon wax di ko sàkk ci moom day moom nga koy defal jox na la ci ndigal ànd na ci sedd na xolam na ko def ni mu ko bëggee waaw loolu nag ma sant ci yàlla lool ak ñi ma àndal maa ngi fàttaliku yaar yoo xam ne dina nekk ay ay tawfeex suñu bu ñu ko booleeg lii sëñ Abdou Khader këram gi ci Mbàkke ci Mbàkke xewar sëñ Abdoulaye Fandar bi carrière bi eggee si Abdoulaye Mbàkke moo ko sant jox ko ndigal ne da nga liggéeyal sëñ Abdou Lahad këram googu sëñ kër ga liggéeyal ko jàkka ja sëñ Abdou Lahad moo ko liggéey ba mu egg mu jox caay bi sëñ sëñ Basiru Jóob mu jébal ko sëñ Abdou Lahad mu jox ko sëñ Abdou Xaadir mu def fa kër ak jàkk kër gaa ngi fii kër sëñ Abdou gi 90 sëñ Abdou Xaadir nekk la Sëriñ Tuubaa sëñ joxoon nañ ko ab liggéey sëñ Abdou Xaadir rek ko joxoon bokkoon naa si ña doon móol ca móol ya ak di yanu ca móol ya bâtiment boobu boo dee ba tey ma fa waaye geneen tawfeex da ci am goo xam ne Sëñ Abdou Khadre ci boppam dafa santoon Sëñ Modou Ablaye jàkkaam jooju ci biir këram ji muy jullee waxtu juróom ngir mu yeesa yeesa yeesalaatal ko jàkka ja loolu Sëñ Modou Ablaye la ko def loo kon bu ñu ñëwaatee Sëriñ Bassirou mi di di leeru Sëñ Abdou Khadre ñu sàkkuwaat loolu ci moom mu tegaw suñu loxo kon loolu rek dañ ci sant yàlla bu baax euh, Eh, kàddu yi moom xam naa du mën a gudd ndax moom jëfal sunu borom loolu jëf la ñu xamee te maam Cheikh Fall daa wax ne wax lu lu mu bëre kon na na doon tudd yàlla rek doy na ci walla wala jàngal xuraan wala xasida wala ngay wax lu baax te xam na li ñuy wax wax lu baax la waaye nee la ci des lépp na ko na koy féetal ci jëfal yàlla sa borom waaw eh, sëriñ bi nag moom day sërëb sëriñ Touba te maam Seexeeru daa waxoon ne si sëñ Mouride lay laa ko dégg mu wax ne keroog bañ demee wëri tool yi too tool yi ngay xaw ma ñu ngent yu seen laaj baaree liggéey ba mu ko joxoon ba ñëw fekk ko ci biir néegam mu ne maam Seex daa tëdd tëdd bàyyi Seex Taal Galo wala sëñ mu Njaay Jum nee na ba guddi gi xaaj bu mu xëyee mu ne ko mu Njaay Jum mun na ko faal mu ne ko damaa gis njaboot gi yëpp. def a saaw kenn ku nekk am foo jëm mooy nee ma topp leen nee nag man waaye alhamdulilah rabil alamin i dalal sama xel mooy topp na leen waaye gis naa kenn génnu si tool bi tool sëñ bàmba bi nee na kenn génnu si tool bi nee ñoom ci biir tool sëñ bi waaye moom daa waxoon moom sëñ maam Seex daa waxoon sëñ bàmba ne ko damay ñaan di la liggéeyal samay doom di la liggéeyal samay samay sët di liggéeyal say sët samay sët samay seeni sët di liggéeyal seeni sët waaw loolu maam Cheikh Ibra ko ñaanoon suñ Bàmba moo ko waxoon moo ko jaayante woon moo tax nun luñ mën a am liggéey sëñ Tuubaa dañuy daqal loola waaw suñ lépp suñ lépp ci liggéeyal sëñ Tuubaa lañ ko aj waaw mooy mooy mooy suñu dund mooy suñ koom-koom mooy suñ mooy suñ teraanga waaw bu mu nee mooy suñ teraanga nag jubluwuma ci lu lu jóge ci nit di ñëw si ñun waaye loolu moo mooy suñ teraanga ndax ëllëg suñ suñ borom ci la ñuy fayee mm. ngir ngir ngir dugal aljanna waaw ndax bu ñuy liggéeyal suñ tubaar mooy liggéeyal suñu borom ndax li ñuy defal suñ Tuubaa lépp lu yàlla moom la mooy jàkka yeeg kër yeeg téere yeeg lépp ñam yi ñu toog di ko joxe lépp suñu borom moo santaane kon suñu Tuubaa dañu ubbil yoonu aljana te ñu ci yoonu yoonu texe te ñu siraatal mustaqim kon na ñun ñëpp ñu xam ne rek loolu mooy mooy mooy mooy mooy kàddu yi di sant ñëpp nag ñi ma ñi ma seqal Cheikh Modou Abdoulaye Fall ñëpp ñu ñuy samay rakk ñoom ñëpp maa ngi leen di maa ngi leen di soññ ci liggéey bi waaw di leen ci di leen di leen xamal ne liggéey bi ñoom seenub liggéey la mooy ku Cheikh Modou Abdoulaye Fall meññ ndax sëñ Modou Abdoulaye kat euh, wàcc na wàcc na euh, mboolem lu mu doon defal boromam defal na ko boromam mboolem lu mu doon defal Sénégal defal na ko Sénégal mboolem lu mu waroon defal lislaam bi defal na ko lislaam bi mboolem lu mu waroon defal tarixa yi defal na leen ko mboolem lu mu defal waroon defal yoonu murit bi mu bokk defal na leen ko kenn mënul taxaw ne bu defuloon nangam ndax koo xam nge koo xam ne ay kër liñ ci maye ëpp na ëpp ëpp na ay terrain liñ ci maye ëpp na ñeenti junniy terrain ay kër yu noppi liñ ci maye ëpp ëpp na ñeent fukki kër ay oto liñ ci maye ëpp na ñeent fukki oto euh, euh, ay billets màkk lañ si joxe ëpp ñaar fukki billets màkk ci li nga xam euh, ay kër yoo xam ne daa xool ñi xam ne seen dëkkuwaay demewul noonu rek mu tabax ko te njabootu boppam gi duñ ko yëg xam nga sant da nga naan man ak yàlla ak ak kii ba ba kër googu àgg boroom dëkk fa xamuñ nu mu toll waaw def na ko def na ko def na ko fii ba. soo demee euh, Gànjool def na ko fii ba Jolof def na ko fii ba Njaareem tubaa gii lañ ko def kenn xamul nu mu toll ak ay kilifa yoo xam ne tey boo leen tuddoon seen seen dëkkuwaay da koo def te yàlla rek tax te xam ne bokkut sax maanaam li nga xam ndigal yi nga xam ne Serigne Touba da koy jox mu def ba ci fii Seex Saalih Mbàkke delloo ci boromam foofu Serigne Modou Bilahi moo ko liggéey man mi bokkoon naa si ñu doon jëlee bagage yi ak ak téere yi fa nekkoon euh, Serigne Abdoulaye da ko joxoon. Eh, kooku moom wàcc na lim def ci ay ay teen def ko ci ay forage sanc ko ci ay daara ëpp na ñeen fukki daara ci réew mi waaw dëkk bu si nekk mën naa la ko tuddal teg fu mu sanc ay daara teg fa njabootam ñuy jàngale alxuraan mën naa laa tuddal ñeent daara yoo xam ne wala juróom benn daara yoo xam ne foofa dem ci réew mi doomam nga koy fekk mu toog fay jàngale alxuraan yor daara ja di jàngale di doomam suñ mu dam lay faal waaw boo dee baaba garage di nga fekk suñ Murtala Fall doomam la daara ju mag la fa yor keroog ba ba nga ko fa man mii la boole mbooloo mi ak ñoom sëñ Badou Diop ñoo nga fa sancal ñu jox ko fa ñaar terrain mu féetale ko benn ba nekk ko toog fi jàngal alxuraan ba nii boo fa demee am na xale ñi ngi tari alxuraan waaw demee eh, eh, njaareem doomam ko jox sëñ Basiru Fall mu tudd sëñ Basiru Fall alxuraan ma nga fa daara alxuraan la fa yor di jàngale xale yi ñu ngay tari di mokkal di tari boo boo boo ñëwee Tuubaa gi sëñ Muudu Maamun mi ngi fi ci Baay Faal gi doomam at mu jot ay xale yu bari dinañ tare tare ci mu alxuraan ba nopp mu boole jàng alxuraan ak jàngal xam-xam boo boo demee am na école bu mag fa ne ak daara sëñ moo fa nekk di jàngal alxuraan eh, ak ak sëñ Basiru fa la daara alxuraan la yor dafa jàngale dafa yare daara tarbiya yi njabootam gi ñëpp kenn ku si nekk am na barab la teg nga yor fa daara tarbiya di liggéey di di di di di delluwaat ci yoon wi te loolu lañu sëriñ bi yare loolu la ñu bàyyil euh, man mii nga xam ne maa ne ci bopp njaboot gi fas naa yéene fekk maa ngi ko fi nekkal du mooy loolu mukk liggéeyal ko rek lu ma am jox suñ Tuubaa lu ma am jox ko Seex Ibra utuluma sama bopp dara waaw soxluma sama bopp dara lu ma am suñ Tuubaa laa koy jox lu ma am maam Serfal laa koy jox soxlawuma sama bopp dara xalaatuma samay doom xalaatuma xalaatuma sama lenn jox naa sama bopp sama lépp jox naa ko Sëriñ Tuubaa jox naa ko Seex Ibra waaw sama lépp laa jébal Sëriñ Tuubaa jébal ko Seex Ibra na ko Sëriñ Mouride Ablaye Fall defe woon ci Seex Ibra ak na ko Sëriñ Ablaye Fall Ndar defe woon seey ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Ablaye Fall Ndar dafa seeyoon ci Sëriñ Tuubaa demal la Sëriñ Tuubaa soldaar ba jeex takk nekk na Sëriñ Tuubaa ci yéen Jolof gii ba Sëriñ Tuubaa gërëm ko mu toppaat Sëñ Tuubaa ba ñëw njaarim ba Sëñ Tuubaa gërëmaat ko ba ba ba 1914 mu dem soldat première guerre mondiale ba ñibbisi sëñ Mourou Ablaye toog nañ ci xel ko mu nettali boobu sëñ Mamour yi mu yaa ngi toog keroog bi mu yeewi mbooloo mu ne sëñ Ablaye Fall Ndar de nee na moo bàyyi seex mu maam seex mu Fatma Fall dañoo jóge soldat ñëw sol seen nuyu seen bàyyi si muy leen dem leen dem leen ci seen maam sëñ tubaab ak seen yére yi ngeen sol bu leen ko summi suñ ngeen demee ba àgg ndax xaw ma boo na ci yéen wala déet ñu àgg nee na sëñ sëñ Tuubaa daal ne ah sëñ Ablaye ñëw ngeen nee na mooy teg sëñ ko moo ne moo ne yow laay wax de nee na sëñ bu koy nettali nee na nee na sëñ Ablaye ne bu sëñ Tuubaa ne nee na nee dama rus ndax ne ko toll sëñ Tuubaa na am sëñ Ablaye nee na ma ne ko Mbàkke ñëw nañ de Mbàkke mun ànd ñu fa nekkoon mu nettali ko lépp mu ne ko sëñ Tuubaa tàngal leen war nga ci loxoom xelil leen kenn ku nekk mu joxal ab nga naan mu ko Abdoulahi mu ne ko mu ne ko Mbàkke mu ne ngi àndaloon am ngeen wusool suñu borom defal leen wusool waaw ak ngeen ci yàlla suñu borom toppatu leen jenn jëf ak ngeen rek fa boroom am ngeen wusool waaye sëñ Modou Ablaye keroog dafa wax ne sëñ Ablaye fan la ca carrière ba ba mu yeewu mbooloo mi sëñ Modou am da toog ñëpp toog di jëw jëwriñam murit yëpp toog dafa wax ne wusool ga ma sëñ Tuubaa defaloon bi ma jógee ci geer bi mayaat naa ko Baye Fall yëpp defaat naa ko joxaat naa leen ko man man Abdoulahi ma ma féetal Cheikh Ibra waaw ma féetal Cheikh Ibra fekk nga loolu Ibrahima Cissé mii ndax bi liggéey bu tàmbalee ba léegi mi ngi fi ub këram waaw sëñ Ibrahima Ndiaye mi jógee ba Njaareem maa ngi sant ñëpp Baye Baara Ndiaye nii moom it ko ba yorwaay moom ci koor gi koor koor gi mu génn jamono da ko no sëñ Baara gërëm naa la seexal naa la yëkkati mbàjj mi doon sàngoo daal koy xëpp sëñ jiili ki ko seede fekke na ko ngi nii mooy sëñ Baara Ndiaye yorwaay barki démb la fa indi fii téeméeri junni ci feer ak ciment waaw soto doo ba may defal sëriñ bi ca Jolof Ndar Fall euh, mën naa ne kenn mënu ko ca lam ca def daanaka man na mën na ñaari million waaw koor gi ndog yi kenn mënu ko ci bu ko neexoon wàcc de ndax sëñ mu Ablaye nee na ko wàcce naa la gërëm naa la seexal naa la mu ngi nii moom la sëñ mu Ablaye mujj mujj a seexal déedéet dafa dafa gën a fet dafa gën a fet dara waaw kon nag maa ngi sant ñëpp bàyyi seex fay soccaa na nga mag ñëpp a ngi fi bàyyi bàyyi sëñ kii mbuuba ngi nii bàyyiwuma kenn de waaw ñi ñu bokk Cheikh Modou Abdoulaye ngi nii bàyyi mbay fay saam jëwriñ sëñ Bada Diop sëñ Youssou Dieng Louga waaw ñëpp ngi nii mag ñi ñëpp ngi nii waaw euh, kon nag xam naa damay damay damay dañuy ñaanlante rek boo defee sang si ñoom bu ñu amee luñ ci sànni ñu xam ne rek lépp sëñ Modou Abdoulaye la rek waaw waaw jërëjëf liggéey bi nag mi ngi nii ñu ngi ciy woo ñëpp di ci woo soppe yi di ci woo euh, mbokki taalibe yi di ci woo ñu bokkal njabootu Cheikh Mourou Abdoulaye jiital leen ji di ci woo am na jàmm yi dëkkandoo yi waa biir réew mi ak bitim réew euh, lu ñu si waaye jox daal dinañ la ko ci defal ci liggéey bii. sëñ Mamoune yow ñu ngi sant bu baax di nuyu waa Lamp Fall sëñ Aliou Thioune waaw di nuyu nuyu ñooñu ñëpp sëñ sax si Aliou Bada Ndim waaw di sant ñëpp euh, yàlla nañ ko teew yàlla egg jàmm. ba jébal ko sëriñ bi jàmm barke Cheikh Ibrahima. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa